alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ey yéen mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom mi ñu war a sànq mi ñu war a sax di ko sant ci li ñu neex ak li ñu naqari ñi ngi koy ñaan mu julli sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan mu julli ca njabootam nga ak sahabaam ak ña koy topp ba ila yawmi diin mbokk sunu xutba tey gannaaw sunu xutba ajjuma bi wees mu doon fàttali sunu mbokk jigéen ñu tedd ñi naka la yàlla farataale ci ñoom muuraay ñu fàttali ne muuraay du identité ay ibaadu wala mandarga ku ñuy tudd ahlu sunna bal koo xam ne daa gëm yàlla gëm bisu dafa war a gëm ni ni war a jullee tisbaar war koo jullee weeru koor su dee jigéen noonu la war a muur a sawra waaye mbokk muur awra boobu bokk na jubluwaay ba gën a rëy ba ca lislaam sàkk woon mooy fexe ba jigéen benn góor du jot ci moom lu dul góor boo xam ne tur yàlla daa jaar seen diggante muy koo xam ne dagan na ko muy jëkkëram bokk na lu mu fekk mooy musiba bu ñaaw boobu nga xam ne mboolem yonent yi yàlla mës a yónni soo demee ci seeni téere da ngay fekk ñu xaraamal ko yahud ya li ñuy bon bon bon nasaraan ya li ñuy réer réer réer ba tey téere yi ñu yor soo demee fekk ña ngay xaramal li di njaaloo mbokk njaaloo googu la sunu borom tagg jaamam yi nar a dëkk aljanna ne mooy ñi nga xam ne dañ koy wéetal duñu woo keneen ku dul moom ñiy toroxlu seeni julli waaye mooy ñi nga xam ne dañuy wattu seeni pay mbokk ñooñu nga xam ne dañuy wattu seeni pay lu dul xanaa lu dul ci seeni borom kër wala ci seeni soxna sunu borom nee na ñii ñooy nar a dëkk firdaws yal na yàlla boole nañu ci ñooñu borom bi yàlla subhanahu ne ngal la waay bu leen jege njaaloo njaaloo day nekk na loo xam ne lu bon la te yoon la woo xam ne yoon wu ñaaw la lii nga xam ne gis nañu ko dañuy delloo ci ne ndekete njaaloo nekk na ci bàkkaar yi gëna a màgg gannaaw bokkaale ak sa borom sunu borom boole na koog bokkaale boole koog rey nit ca place yu bari ci ab téeréem dellul ca ah, la nga xam ne mooy suratul anam suratul euh, isra muminuun ila axiri ndax lam mën a jur ci jaxase ay famille jël deret yu kii yóbbu fële wala dugal ci ay famille deret boo xam ne bokkul ci seen deret lam mën a jur ci xotti orma lam a jur ci jur ay noonoo bal lam mën a jur sax ci rayante ci diggante doomu aadama ca képp koo xam ne gis na ni kii kat dafa njaalu ak sama soxna wala sama doom wala mu njaalu ak sama sœur lam mën a jur xatta reyante looloo tax place yu bari bu yàlla waxee njaaloo rek rey la cay teg ndax nam mën a jure loolu loolu mbokk moo tax ba sunu borom yàlla ab julit heure bu xësee bay commencé di julli nekk ab julit yonent bi alei salaam nee ñett rek moo tax ñu war koo mën a rey bokk na ci ñett yooyu ba te jiitu mooy génn na diineem kooku moom yéefar la koy rey ñaareel bi mooy daa rey bakkan bu yàlla araamal waaye ñetteel bi mooy dafa njaaloo képp koo xam ne mas nga sëy nga ànd ak sa soxna wala soxna ànd ak jëkkëram bu njaaloo ci lislaam daf ne kii nañ ko rey loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam it daal di ciy tëkkoo ne nañu xam ne aji njaaloo ju jamono bi muy njaaloo du julit boo delloo ca naka Abu Hurayra nettalee nee na na am heure bu jógee dem ci biir njaalo bi ngëm yàllaam dañ ko yëkkati amma bu tuubee ñu daal ko koy wàccelaat loolu mbokk dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> gannaaw fitna yi njaaloo mën a indi ci àdduna ca ñu wax leen ko mu bokk ci loolee noonu reyante gëm mën a indi waaye ay feebar yu bon yu mën a indi waatal ci yàlla ne <coughs> lii nga xam ne mooy sida bu bon bi nga xam ne Ebola bu ñu wax naan mi ngi ci mille cinq cent ci yu mu rey sida moom ñaata la rey yàlla ko xam jógewul fenn lu dul ci njaalookat yu bon yi na doon ñay njaaloo jigéen ña wala góor ñay njaaloo ci seen biir loolu kon lam mën a jur ci ay feebar kenn xamul nu mu toll lam mën a tas ci ay sëy kenn xamul nu mu toll waaye mbokk loolu du dara par rapport ak la yonente bi alayhi salaam nettali nee na benn bis day jibril ak mikaayil mas nañ maa jël si ñu dem ci bi ma woon dundug barzaq sama xeet bi ni muy dunda ci biir barzaq mooy diggante ñettee ba baa ñuy dëkki nee na wan nañ ma lu bari waaye am na benn fuur buñ ma yóbbu nee na ci biir fuur bi maa ngi ci dégg yuuxu yu tar nee ma ànd ak ñoom ñëw yërndu fekk fa ay góor yu bari yu def yaramu neen ak jigéen yu bari yi def yaramu neen ñi ngi leen wékk am ay safara yuy jóge ci suuf di lakk la nga xam ne mooy la nekk seen diggante tànk yi nee na ñu nekk di yuuxu mën a waa jibril ñii ñooy ñan mu ne ma ñii mooy sa njaala côté xeet bi fii la leen yàlla di tëj ba yowmal qiyaam ñu doog a xool seen i dossier loolu mbokk da ngay gis ne muy musiba bu rëy moo tax boo delloo ca suratul mumtaxina da ngay gis sunu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne ko ay yow yonent yàlla bi heure bu la dikkalee ay jigéen bëgg a dugg ci lislaam jaayante leen ak ñoom naka ngay jaayante ñoom xamal leen ne waruñu bokkaale ak yàlla dara xamal leen ne waruñu sàcc waaye xamal leen ne waruñu njaaloo waruñu njaaloo bay dugal ay jaxase la nga xam ne mooy famille waruñu indi it ak duural te mooy waruñu duural kenn la nga xam ne mooy njaaloo loole mbokk da ngay gis ne ba ko yàlla wàccee muy alquran bi ñuy jàng gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu buxaari muslim nettali kii di ubadata ibnu samit nee na mas nañoo toog wër yonent bi alayhi salatu wasalaam ba mujj mu ne waaw xanaa du ngeen jaayanteeg man ma kaa yow yonent bi ñu koy jaayante nañu ak yow ba pare mu ne waaw dama bëgg ngeen jaayanteeg man na du ngeen bokkaale yàlla mukk du ngeen sàcc mukk waaye du ngeen njaaloo mukk loolu mbokk mi ngi noonu ku mel ni imaam Ahmad daana wax ne man day gannaaw rey bakkanu jullit xawma benn bàkkaar bu jullit di mën a def lu gën a garaaw njaalo loolu mbokk borom xam-xam yi dañuy wax rawatina ku mel ni Munziri mu ne yenn bi alayhi salaam de nee na kii naan sàngara ba dee ak naan sàngara boobu moog jaamu ko te xërëm yi la boole taxawal ci kanamu yàlla te mu ne wér na ne ne kii njaaloo ba dee yàlla njaaloo kooku moo gën a bon ki doon naan sàngara ba dee yàlla naan sàngara ndax naan ko du sàngara bi ci moom la yem amma njaalookat bi day yàq société bi yépp mi ngi noonu amma sunu borom nag bokk na ci laa biire gum ñu defal <coughs> amul benn mbir lu muy tere lu dul dana tere la nga xam ne moo ñuy yóbbu ca loolee loolu moo tax ba sunu borom yàlla bi mu teree njaaloo yàlla waxul fenn ci alquran ne bu leen njaaloo tudd na njaaloo lu kenn xamul ci alquran waaye benn yoon yàlla waxul bu leen njaaloo ana lan la yàlla wax mooy laa taqrabu zina ndax yàlla moo ñu gën a xam xam na ne ni doomu aadama bu dee góor a nature bi ko yàlla bindee mooy dafa nekk positif ndaw si nekk négatif ñu war a doon ñuy ànd looloo tax am na benn position boo xam ne bi ngeen ca yeggee sa xel lu mu rafet rafet sa ngëm lu mu rafet rafet loolee mën na la réer <coughs> loolee mën na la réer ba nga tàbbi ci musiba boobu te yéen ñépp yéen a ngi koy jàng ca ah, yeneen ci yàlla bu baax ba mu yusuf alayhi salaam keroog ba nga xamee ni nii soxna si piège na ko ba dugal ko ci fa gën a sori ci appartement ya daal di futteeku ci kanamam sunu borom nee na soxna si de xemme mën na jëm ci moom waaye moom it xemme mën na jëm ci moom lu waral loolu mooy proximité mooy jege ga nga xam ne moom la ko jege woon moo tax sunu borom dane daw leen ko bu leen jege njaaloo borom jege njaaloo boobu loolu moo tax islam bi mu ñëwee xaraamal jigéen ñi di génn seeni awra sant leen ñuy muuru mu daal di indi ay yoon ne nañuy nañuy doon ñoo xamee ne nii moytu moytu boobee gis nañu boo dellu woon suratu nuur di saar boo xam ne nii mooy saar bi gën a matale ci tere njaaloo sunu borom mi ngi ko ubbee ci fanweeri aaya ak ñett yoo xam ne lépp borom bi indi na ca fukki màndarga ak ñeent fukki tere ak ñeent yoo xam ne yépp boo ko dajalee lenn rek lay jublu mooy nañ fexe ba bu ñu yegg ci njaaloo fukki tere ak ñeent ci fanweeri aaya ak ñett bokk na la ci gën a màgg mbokk julit mooy sunu bët yi borom bi ne bu ñu nekk di xoolante xool boo xam ne xoolu bànneex la mu ne ay yenn góor ñi fexe leen di sajj seeni bët bu leen nekk di xool jigéen ñi xoolu bànneex waaye jigéen ñi fexe leen di sajj seeni bët bu leen nekk di xool góor ñi di bànneexu ci ñoom loolee mbokk da ngay gis ne bokk na musiba bi nga xam ne nii am na ci mooy la nga xam ne ni tey moom la jigéen ñi mel nañu génnee seeni awra ak la nga xam ne noonu la mën nga tasaaroo tasaaroo naam ci marché yi ak la nga xamee ne nii moom mooy en euh, place yi waaye bokk na ci it nam tasaaroo ci télévision yi nam tasaaroo ca la nga xame ne nii moom mooy lépp lu ñuy seetaan ca mbokk maa ngi lay xamal ne jigéen bu taxaw ah, ngay jàkkaarloog moom di bànneexu ci yaramam moo kay ngay seetaan te télévision ba di bànneexu ci yaramam moom yem ca ni nga mën a xoole kii ba am sax lu génn ci yow noonu nga mën a seetaane film bi wala kay di présenté ba am lu génn ci yow kon ñaar yépp a xaraam nga la waay bàyyil xel loolu islam daal di indi ay yoon daaji ne jigéen ñi nañuy sax ci seen kër wa qarna fi buyutikunna wala tabarruja tabarruja aljahilati alula na ngeen sax ci seen i kër sax ci kër googu jigéen warul génn lu dul loo xam na munta ñàkk mu dem doxe ko daal di dellu siwaat amma yeneen ci baari sam daan ñu tere ne du dagan mukk benn jigéen boo xam ne gëm na yàlla gëm bi di dem tukki boo xam ne dafay am ñetti fan ci àndul ak koo xam ne sëy daa aram seen diggante mu am beneen riwaaya boo xam ne benn fan la wax jigéen nar a génn tukki dem di fa am benn fan ca tukki ba dafa ànd ak koo xam ne ni maxaram la loole dafa doon lu xaram mu safaanoo ak li ñu yàlla nattoo tey mooy képp koo xam ne am nga doom bu jigéen fexe ne dem na ba am bac toll dix-neuf ans vingt ans nga daal di mbaq Amérique wala nga mbaq Union soviétique loolu mbokk tubaab bi moo ñu ko indil ñu nekk ay jaamu alal xoolatuñu ak mbaax xoolatuñu ngor mais ku nekk yaay xool réussite pour mën a am alal te wallahi du alal moo lay may jàmm du alal moo lay may aafiya nga la way loolu bàyyi leen ci xel bu baax bokk na ci jigéen boo demee bay génn ne borom ne bul génn di jaahir yi doon génne mooy di génn di génne sa taar waaye hey mbokk jigéen ñi tey xoolal li nga xam ne noonu la ñuy solo wallahi tey yàlla dugal na sama nopp yi jigéen boo xam ne daal génn ñëw di wax moroomi jigéenam di méttit lu jigéen ñi ni ñuy soloo léegi mogaa yi bu di jigéen ñi ñooy dem bay méttit ni seen moroomi jigéen ñi di soloo moo ala góor ñi ñoom lu ñu war a def ca loolu mbokk mi ngi noonu jigéen boo xam ne dama ma sol day melal ne ko ko yàlla binde ay ciseaux lay doonam wala ay robb yu tafu ci kawam lay doonam ñoo xam ne seen kaw ween ya seen lépp ma nga nekk na bàcc loolee mbokk dañuy gis nay islam dafa tere loolu mu ne na waaye loolu jaahile ñoo ko doon def fexe leen bu mu leen def loolu bokk na lu lislaam tere mbokk ci njaaloo googu pour ñu bañ caa tàbbi mooy wéetaay wéetaay wéetaay diggante góor ak jigéen yonent bi alayhi salaam nee na góor ak jigéen du ñuy wéet lu dul seytaane ñëw ñettal leen wallahi waa ji mën na nekk ko baax koo xam ne du woon sol mukk dàllam dem njaaloo ji ndaw si nekk ko baax du woon sol mukk dàllam dem njaaloo ji amma wiitaay bu amee seytaane daal di joxe xol yi daal di indi fitna wiitaay boobu nag mbokk da ngay gis ne bokk na lu bari tey sunu jamono ji mooy demal ci kër yi rawatina kër yi nga xam ne ay locataire ñoo fa nekk am ponkol moo xam ne kenn xamul fu mu juddoo fu mu yaroo ñëw luy nekk sa biir kër jaxasoog sa xale yu jigéen léeg-léeg ñëpp génn moo jigéen fi nekk la nga xam ne moom la ñu yàlla nattoo ci li ñuy tudda bon mooy jël sa doom bu jigéen mu dem dem ci ay kër yoo xam ne xamoo lan mooy seen jikko mën naam sax ay kër yi ñu ay julit mu fay nekk di wécc ak ñoom ak la nga xam ne mooy am suñu bureau yi secrétaire boo xam ne moog directeuram ñoo bokk wéet tëj seen bureau amul kuy yegg si ñoom lu dul da fëgg mbokk yéen a yàgg dégg yàgg gis loole la nga xam ne mën na koo jur ci ay fitna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ne moytu leen di dugg ci néeg bu jigéen ñi di wéet ak ñoom benn ci waa ansaar na ko ah yu mu yàlla yónni waaw bu dee nag jegeñaale jëkkër ji ndaw si mu ngi ci kër jëkkëram di sëy frère jëkkëram mooy magam wala rakam wala ay jarbaati jëkkëram ndax mën nañoo dugg di nekk ak moom ci biir néeg bi yonent bi alayhi salaam ne leen nag loolu mooy dee ndax lu tax mu nekk dee dañ naan ah kii magu jëkkëram la ah kii rakku jëkkëram la bàyyi leen ngeen ànd wéet te loolu seytaana mën na faa jaar indi loo xam ne ni yàgg ngeen ko dégg lu dul jeex du xaaj ngalawaay xam leen ne mbokk julit bokk na ci musiba boobu mooy ñu bari ci ay jeune tey yàlla may na leen ñi ngi liggéey ñi nga am ay oto sax te na nga wuñoo takk jabar yeneen bi alayhi salaam daana wax ne képp ci yéen koo xam ne mën naa takk jabar ne dem takki jabar loolu moo tax mu mën a téye bëtam loolu moo tax mu man koo fegal la nga xam ne mooy payam mu ne it xale yu jigéen yi ngeen yor bu dee am na koo xam ne ñëw na gërëm ngeen diineem gërëm ngeen jukkoom na ngeen ko may soxna lii de bu dee defu leen ko fitna day daal di am ci biir société bi mbokk bokk na ci la nga xam ne moo gën a tasaaroo njaaloo googu mooy li nga xam ne mooy sunu télévision yi nga xam ne bu ngeen dee lim ay noonam bu ngeen dee lim noonu famille première noonu ngalawaay xam leen ne mooy télévision télévision boobu nga xam ne moo ñuy génnal jigéen ñu bon ak góor ñu bon ñu nekk di fecc di fecc di wane ay melokaan yu bon yoo xam ne yow bàyyi caam wala bàyyi sow wala bàyyi saar bu la neexee yaa ngi toléré loolu sa njaboot gépp jàkkaarloog télévision bi di seetaan et pourtant ñoom bu doon ñoo jóge fële ñëw ne la papa dañoo bëggoon show ci biir kër gi da nga naan abadan doo ko def waaw doo ko def ba pare nga bàyyi ñu koy seetaan ci sa sa kër ci télévision la nga xamee ne mooy film yu bon yooyu théâtre yu bon yooyu clip yu bon yooyu bu doon dañoo ñëw tey ne la daal clip bi ñuy bëgg a def sa biir kër lañ ko bëgg a defee da ngay bañ waaw pourquoi nga baax d'accord su njaboot di ko seetaan clip yu bon yooyu lu mel ne masalan ñu naan dana ma neex wallahi man duma ko seetaan uma sax télévision waaye maa ngi dégg ñu koy wax dana ma neex boobu lan lay jàngal xale yu jigéen yi mooy nu ñuy mën a def ba fexee bépp paa bépp ndaw képp koo xam ne da nga mën a fexe ba aborder ko ba jokkoo ak moom loolu seen doom yi di ko seetaan épisode par épisode bokk nañ nag tubaab yi nga xam ne xaraama lu ñu dara xamuñu yàlla xamuñu yeneen ci yàlla di leen tawal ay film ci seen njaboot gi di leen jàngal nu ñuy bone nu ñuy yàqoo lool lépp mbokk da ngay gis ne mi ngi nekk di tasaaroo mu bokk lu gën a garaaw la lu ñuy tuddee internet nga xamee ne moom fu la neex ngay dugg lu bon lu ne mën nga ko seetaan waaye mu bokk lu gën a garaaw internet li ñuy tuddee portable mbokk portable mooy lan mooy la nga xam ne xale yu jigéen ñi tey moom la ñuy jokkoog seen far yi ñoom la ñu nekk di waxanteeg ñoom bàyyi nelaw la yaay nelaw la mi ngi ci biir néegam waaye ñi ngi nekk di yónneen koy message ñi ngi nekk di waxtaan bu ñu dajee mi ngi koy yónnee ay photo mu koy yónnee ay photo photo yu bon yooyu nga xam ne xale yi ñu ngi koy tasaare par bultus di ka tasaare seen biir te sunu borom waxoon na ko depuis quatorze siècle inna alladina yuhibbuna an tachia alfahishatu fi alladina amanu lahum azabun alim fi dunia wal axira wallahu yaalam wa antum la taalamuun képp ku bëgg moom tasaaroo ci biir julit ñi xamal ni yàlla dana la jagleel mbugal àdduna ak alaxira te wallahi xam ngeen ne mbokk télévision yi jàngalul sunu njaboot bi lu bon la bari ci seen xale yu jigéen yi yor ay portable la ci bari la nga xam ne moom lañ koy jëfandikoo mooy ak mbon loolu moo tax ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu waat xool njaboot guy nga xam ne yowmal qiyaama yàlla dalay taxawal laaj la naka nga leen yore ana lan la ñuy jëfandikoo matériel yooyu nga xam ne xéewul la yàlla indi woon pour mu jëriñ doomu aadama waaye seytaane wëlbati na ko def ko muy xam ne loolu dafay lor la nga xam ne mooy doomu aadama yéen ñëpp ay sàmm ngeen ku ne dañ ko laaj la nga xam ne mu la doon sàmm mbokk lislaam yi ngi nii xeex na lépp loo xam ne nii njaaloo la indi ay moyens yu tax ba njaaloo jóge fi ku njaaloo duma leen ko bu dee musta sëy su ma see sëy rey leen ko njaaloo ko yàlla mu ne bu leen ko takk mukk la ñu ngi noonu bu leen ko takk mukk lu dul ne daa tuub noonu it mbokk li lislaam tere góor ak jigéen di joxante loxo ngal la waay mbokk joxante loxo diggante góor ak jigéen xam leen ne ibaadu yu moomuñu ko maa ngi gis benn médecin démb rek ñëw ci benn xale bu jigéen di ko jox loxo mu téye loxo mu ne ko ah fàtte naa yow ibaadu nga waaw mbokk yéen ñi nga xam ne da ngeen ne du ngeen ibaadu ba pare du jullee ka woor ndax xamuleen ne sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo terewoon góor jigéen di di nuyonte wax naa leen sànq ne doon na jaayanteeg jigéen ñi sunu yaay Aïcha nee na loxo yonent bi musul tega ca loxo benn jigéen bu daan jaayanteeg ñoom day wax ñu ne nangu nañu amaa bu dee góor fokk nga teg sa loxo ci loxo yonent bi heure buy jaayanteeg yow lu tax ndax loolee la ko yàlla subhanahu wa taala araamal moo ko bu ñu dellu woon tey di lim ana borne ya nga xam ne moom la lislaam tëral ngir njaaloo ba ñu am ay xutbay xutba la waaye bokk na la ca gën a màgg mooy sunu xutba ma passé ngal la waaye nañu xam ne bu jigéen ñi muuru woon nañ waroon a muuroo léegi njaaloo jóge fi xale bu jigéen bii muuru xijaab normal ñay joxe carte bal dañ ko teggi ña nga xamee ne nii dañuy joxe carte colorera dañ ko teggi ña nekk ca mbon ya dañ ko teggi ca itamit xale bu jigéen bay muuru correctement heure boo gisee kuy nuyoo bu ñëwee da koy teggi ca mbokk nuyoo boobu wallahi da ngay gis benn waay boo xam ne benn couple fii ci noor Foire ka nga xamee ne mooy waa ji bokk na la la ko dugal ci ndaw si nee na dañoo daje woon rek mais nee na bi ma nuyoo ndaw si dafa mel ne am na benn courant bu dugg sama xol ca la ko toppe ba ca la ko marié waaw bu ko marié woon luy am loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax mbokk njaaloo ngoogu ci mbolom njaaloo ngoogu ci na ko yàlla tere waaye nag sunu boroom boroom yërmande bu màgg bi benn waaye dana wax ne ah waa man day yàlla na woon na ma dama masa njaaloo ana lan mooy pexe déglul boroom yërmande ji lan la wax ci loolu sunu boroom mu ne sama jaam yi ibadurahman mooy ñan mooy ñi nga xam ne duñu woo beneen buur bu dul yàlla duñu bokkaale yàlla mooy ñi nga xamee ne nii day duñu rey benn bakkan waaye mooy ñi nga xam ne nii day duñu njaaloo mukk xanaa xamu leen ne ku def loolu day mbugalan koy xaar yowmal qiyaama xanaa lu dul koo xam ne daa tuub daa di def lu baax sunu borom mu ne ñu mel nii day danaa soppi seen mbon yépp def ko muy tiyaaba képp ko xam ne nii nekkoon nga ci njaaloo nga xëy bàyyi ko ci yàlla tax du ak màgget moo tax nga bàyyi ko du ragal nit ñi tax nga bàyyi ko waaye da koo bàyyi ci yàlla tax mboolem njaaloo yi nga defoon yàlla bindal la ko tiyaaba tiyaabo bu mel nan mooy mel na ne yaa ngi àndoon ak sa jëkkër wala mel na ne yaa ngi àndoon ak sa soxna ay yow xanaa xamoo ne heure boo àndee ak sa soxna am nga tuyaaba xanaa xamoo ne heure boo àndee ak sa sa sa jëkkër am nga tuyaaba loolu moo ko mooy li nga xam ne kon moom la ñuy woo nga la waay yéen jeunes yi góorgóorlu leen bàyyi njaaloo gu bon googee góorgóorlu leen sàmm seeni der rawatina yéen xale bu jigéen ku góor ki lay topp di la nax di la jox ay xaalis jaru ko lan ko nar a jaru ko <coughs> bu dee ne dem nga sax da nga ne damaa bëgg mu takk ma naa ko jox sama bopp bu sa valeur nekkoon cent dem na léegi vingt cinq ndax bu dee ne dalaa nax ba njaaloog yow ba takk la dootu la wóolooti su ko defee ngal la way fegal sa bopp ba yàlla boole la ak jëkkër boo xam ne nii turu yàlla jaar na sa seen diggante loolu it mooy yow xale bu góor bi ngal la waay muñ nga ba am ñaar fukkaat muñ nga ba am ñaar fukkaat ak juróom fexeel muñ tee sa bopp heure boo xam ne nii am na lu lay dikkal ci wàllu bëgg jigéen wala lu demee noonu yeneen ci bi alei salaam mu ne wooral koor googu dana doon loo xam ne lu lay en baare la gannaaw bi itamit léegi rek mën na am occasion bu ne cëpp na jonn yaa ngi wéeg rek benn xale bu jigéen toilette ba mel ni jinni fekk si la nga la waaye fàttalikul fuur boobu ma la waxoon ñuy nar faa denc njaalookat yi waaye fàttalikul la yonent bi alayhi salaam wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na juróom-ñaari ngi dee daañu leen keral ci këru arsh bokk na ci bépp góor boo xam ne jigéen ju rafet borom famille bu baax da ko woo fu kenn nekkul kaa ñu njaaloo mu ne ko man damaa ragal yàlla yowmal qiyaama daañ ko keral ci ker ga yàlla di indi yowmal qiyaama dafa keral jaama yu baax yooyee noonu it la ñuy yaakaare ci yàlla insha allah bépp xale bu jigéen boo xam ne góor bu baax gu gu tedd famille woo na ko fu kenn nekkul kaa ñu njaaloo mu ne ko damaa ragal yàlla fu ñu woowee góor ña keral leen ca kerug yàlla ga daañ fa woo jigéen ña bàyyi woon njaaloo ci yàlla tax keral leen ci kerug yàlla ga yal na yàlla laabal ñu laabal suñu njaboot yal na yàlla laabal ñu ci ñu koy bokkaaleel waaye yal na yàlla laabal ñu ci ak njaaloo yal na yàlla laabalaat suñu réew yal na yàlla laabalaat lépp luy xaw suñu biir réew yal na ñu yàlla wàcceel aafiya fi wa wal axira yal na yàlla yeggaleel ñu nawet bi ci jàmm yal na ko def muy naweti jàmm ak barkeel am na feebar yu ñuy dégg bitim réew yal na yàlla saafara ñam dal ay julit yal na yàlla delloo leen seen wér gi yaram waaye yal na yàlla aaral ñu bam ba ñu dugg sunu biir réew yal na yàlla rafetal la nga xam ne mooy suñu mucc yal na ñu yàlla defal ñun ñëpp àjjana muy nekk suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi